Euh, soxal na match Sénégal euh, Guinée fa fësal leen dégtal lépp loo xamante ni xew na ci première mi bi ba deuxième mi bi du ma ci wér nag maa ngi ànd ak Bousso fas yéene ànd ak yéen ci lépp loo xamante ni xew na fii ah Bousso ñi ngi lay nuyu di la wax tey lan nga lan nga indi ah tey da nga def sama yo bu baax fas yéene reporté reporté ah. <laughs> waaw waaw waaw gis nga nee ne tey ñu ngi fii ci seen fan zone bu nekk Yoff ah ñu andil leen tey match Sénégal. di leen wax ni tey dañoo bëgg def interview yaa ma gën a xam bu neex bu amul fenn xama gis ngeen yéen a gisandoo instant bi nii fii mi ngi fees dell yi nice daal ah, waaw kon ay ca gars yi mi ngi noonu dañ leen di bàyyi ngeen teewlu match bi ndax tàmbali na après bu fekkente ni mi nanu nu ñëw ak yéen ci match bi ak lépp li ci xew ba deuxième mi bi tamit nu ànd ak yéen ba ci fin bi incha allah jaa ngeen jëf way way euh, drapeau Sénégal yi kaay kaay drapeau bi drapeau yi muy demee ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ah, sëñ bi waaw drapeau yi nu muy demee nu muy demee ak lu muy jar. waaw ah, nii drapeau yi seer yi ñu ngi koy jaayee 5000 francs yu mag yi. yu ndaw 1000 francs lay jar. Hmm. bandoor yaa ngi koy jaayee 3000 ak fulaari quoi loolu lay jar. mais dox wala doxul. pour le moment mais nga xam naa dañuy xam naa dañuy xaar gars yi instant bi pour le moment. mais fi mu match bi boo ko ñàkkee jar la de. non incha allah mais yàlla baax dama gëm ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy qualifié allah kulli laa gëm man. seen jaay pour mu jar faaw Sénégal di gagné. man dama gëm ne gaynde laa ko tax allah kulli yàlla ñu gagné laa gëm quoi. jeex kon incha kon deuxième mi bi dama lay jël incha allah kon baax na gars yi ñu ngi ci kanam incha allah période bi nu ànd ak ci li ci match bi ah, incha waaye léegi nag gis nañ borom borom café bi il faut ñu laajte ko xool ci lu xam ci match bi salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam rahmatulah. ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay koy delloo yaay booy. bi yaa ngi laal sa café de. waaw waaw di laal bu baax café. Mm, jàkkaarloog fan zone Yoff bi nii. waaw gis nga fii nag mooy café gi moom. tey tey tey tey noo gisee match bi. match bi waaw instant yi wax dëgg yàlla waaw ndam daal lañ si soxla daal. mais mais mais yow man lu ma jaaxal yaa ngi toog mais gisoo gis seetaanoo de. waaw comme instant yii nii gars yi ñoo ma gën a jege sa damay jaay. mais dafa mel ni yow da nga bëgg xaalis de xaalis nga gën a gis. waa instant yii xaalis moom mooy dox jamono bii nii sa xam nga. ñii taaba taaba mais tamit alhamdulilah daal waaw teewul tamit ñu ngi siy gis suñu bopp xam nga loolu daal. mais mais kontaan nañ ci yow ni nga ñëwee nii xam nga bu la neexoon mën nga sañ sa def kon man pour yaa ma gën a xam mais yaa ngi toog di jaay di seetaanaale say mbokk sa sa sa sa sa sa yee waaw noonu la ndax àdduna amul solo xam nga waaw fii moom loo fi gis rek mooy loolu quoi waaw mais teewul dañuy ñëw toog nii sañse ba jekk nii li ñuy jaayee ñun chaque jour boo ñu fekkee ñun nii li ñuy jaayee waaw fii nag moom mooy dal jàmm. mais tey ñaata ngay dóor. comme euh, équipe bi waaw tey moom soxla naa carte daal man instant yii nii. mais loolu bëri na. non bëgguma ñu yërëm leen quoi ndax dañuy yëpp. mais kon <laughs> qualification. Toutes les équipes qui sont là veulent se Elles ont parcours. La Guinée équatoriale a sorti l'Algérie et a éliminé le Mali. Il y a six jours équato-guinéens dans la zone sénégalaise pour déclencher le, le pressing haut. Lampadis. descend. Il est au PC Blaga. Bouchard avec un angle sur le plan gauche de l'attaque particulière. Souhait. Le centre d'un sorti par le capitaine Koulibaly. Coco à la récupération. Quasiment tous les équipes guinéens sont dans la. Dans l'air, ils insistent beaucoup sur leur flanc. Il y a, y a, y a peu de mutation entre Edu Euh, José Miranda et lui se retrouve sur le côté gauche et Miranda vient sur le côté droit. Donc même s'il est en train de traverser le terrain pour revenir prendre sur Salut 6. Salut 6 avec euh, Mane qui décroche. Ça a été payant parce que sur le but, il euh, réussit à, à tenir très très bien puisqu'ils ont beaucoup joué ensemble en équipe nationale. Commence en 2012, Maxime. c'était plutôt latéral et l'ex centré c'était. Euh, Esteban euh, Tedio avec Nampalis, Nampalis Mendy qui reste Saliou Cissé. Camara, Camara avec Mané. Après avoir perdu tout à l'heure, on garde le bal avec euh, Miranda. Machin. Miranda. C'est ah, ah. ah, bien joué de la part de Paul Canet. Canet dans les sortes de la marque, il a été mis au sol. Ah, là, les Sénégalais étaient obligés de faire la faute. Donc, même je vais en tout cas très très bon retour Bastou Diallo, là on revoit. Ouais, ouais, c'est Dana qui le, touche légèrement. Voilà. Ouais, lui aussi, il touche avec la tête. Il veut son peloton. 4 euh, joueurs équatoriens devant la balle.

tey gis nañu détermination tey gis nañu Sénégal mouillé le maillot te gis nañu Sénégal football Guinée tey gis nañu Sénégal beneen xar-xaru kanam ci ci ci kanamu Guinée ah. tey ñu ngi fii ci élément yëpp defe naa bég nañu gars yëpp ci première mi-temps bi ah, kontaan nañu ci li nga xamante ni moo xew ci ah, première mi-temps bi dañuy def ànd ak gars ah, ma ànd sama caméraman eh Libaas Libaas Libaas kay Libaas kay kay kay kay Libaas maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu. maa ngi lay bëggee maa ngi lay bëggee ma. Libaas seetaan nga première mi-temps. waaw sant waaye kontaan nañu. Ah. waaw football bi moom ni mu déparé nii. baax na kontaan nañu ci bu baax a baax. tey dafa mel ne gis nga beneen Sénégal ah. gis nga beneen Sénégal gis nga beneen Sénégal. non gis naa beneen Sénégal. Ah. waaw gars yi wane nañu ne bëgg nañ bal bi. mais suñ continuer rek dañu am dara incha allah. par rapport ak Sénégal bi nga xamante ne moo joué woon match ba lay passé ah gis nga beneen Sénégal bu wane ni dafa bëgg li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique bi. non dañ gën a kontaan ndax xam naa ne match yi ñu doon football gi moo doon jàpp waaw tàngoor gi joué na ci lu baax. tey temps bi temps bi joué na ci tamit su gars yi rek dañu am dara quoi. jaajëf Libaas ja jàmm ci yow jaajëf jaajëf waaw mi ngi noonu gis ngeen ah ñu ngi ànd ak gars yi ah fas yéene waxtaan ak ñoom saa waay ñu ngi lay siyaare. hello ziar. naka xéwali. sant yàlla seetaan nga tey match bi. waaw seetaan naa ko waaw. noo gisee Sénégal. waaw Sénégal bii lan doon xaar. ndax hmm. Sénégal bii ñu gis tamit dal na xel hmm. tey gis nga nu football quoi. waaw gis naa Vélez de Sénégal. beneen Sénégal nga gis. beneen Sénégal par rapport au début Sénégal bi doon bi doon football. première mi-temps bi dafa mel ne Sénégal moom na boppam quoi ci wàllu attaque bi défense bi milieu bi yëpp moom na boppam. waaw waaw première mi moom wax dëgg yàlla Sénégal mu ngi joué loo xam ni bu ko koonee mën nañ am dam te mën na indil coupe tamit. mais li ma gis nii dafa mel ne match bi bi demee ba ci 43 minutes gis nañu mel na Guinée dafa bëgg nangu milieu terrain wu Sénégal. waaw waaw waaw ndax seetlu nañ loolu bi wax lu mel noonu ak ak dafa dem ba ci biir daa xaw a bàyyi tuuti. deuxième mi-temps bi loo yaakaar ni buñ ko defee eh, nu nu doggale Guinée. waaw deuxième mi-temps milieu bi ñu renforcer ko rek génne Pape Gueye dugal Cheikhou Kouyaté wala ñu génne ah, kii Nampalys Mendy dugal Cheikhou Kouyaté. dugal Cheikhou Kouyaté waaw xalaat naa milieu terrain ndax am na capacité xeex milieu terrain moom. attaquant bi ñu génnee euh, Boulaye Dia ñu dugal euh, Bamba Dieng. dugal Bamba Dieng bëgg-bëgg bi parce que Bamba Dieng gars ñu ngi koy réclamé sànq ba tey ñu ngi koy réclamé man xanaa dafa mel ne moo war a dugal troisième bi. voilà moom moo ci sëbi la bokk waaw. jaajëf grand jàmm ci noonu ah kon damay jox jaara ah jaara jaara jaara jaara kaay bu ko defee mu jéem moom it ah xool nu mu gisee jaara nu mu gisee match bi jaara. ah man gis bi jaara sa maillot bi tey dafa mel ni jig na Sénégal ah. waaw gis nga dama ko sentir xam nga Sadio Mané yaa ma a xam. ah dafa mel ne mooy sa mooy sa ah. gis tey dafa mel ne gisuloo beneen Sénégal quoi ci détermination Sénégal bu bëgg li muy def. Ah. Sénégal boo xamante ne fas yéene ne ne wane na ne moom moo bëgg coupe de coupe d'Afrique moo koy jël quoi waaw. non non man tey moom li ñu wane ni gëm naa ne lu dul coupe du monde sax mën nañu ko jël. ah mën na lu jël lu dul. waaw mais yow daal yow inspiré yow wóolu nga Sénégal quoi. waaw ayca kon dama lay delloo sa micro bu ko defee nga jéem wax ak ñi nga xamante ne ñi ngi fii ak nu ñu gisee match bi quoi. d'accord. bu ko defee mi ngi noonu premier mi bi gis nañ ko xam nañ ne Sadio Mané instant bi mi ngi def buzz 10 lañuy wax wala boog topp ma ma xool suñu mbokku sénégalais yi sëñ bi naa def ñu ngi mais sëñ bi nan nga gisee match bi tey. mais mais. ni ñu déparé moom wax dëgg fa yàlla maa ngi si gis sama bopp bu baax a baax. mais match bi lan nga sentir ne tey nan la koy demee. non 2 2 2 0 deuxième bi Sadio Mané moo koy dugal. non tiis fi la lu mu teg baax na ndax xam naa ne moom deuxième mi-temps bi su gis football bu neex incha allah. kon tey daal de. suñ ko bësee bopp rek ni ñu ko téye nii moo laa gis. saa waa ji nee na 2-0 la gis donc ñu xamee ko noonu xaaral ñu gën a xool gars yi yaa ma gën a xam. tey gis naa sama benn jigéen xama ma demandé ko un soxna si eh kaay leen kaay leen s'il te plaît mais mais mais bu leen daw xanaa ñëwaleen eh, soxna si nuyu naa la fay nañ la noo tudd. Seynabou. pardon. Seynabou. Seynabou sa mayonnaise na de. merci mais nan nga gisee match bi tey. Ah, neex na de waaye dafaguñu ba tey ñun lu ñu bëgg. lan nga bëgg. 5-0. 5-0 nee moom 5-0 la bëgg. essayé dugalagum nañ benn donc nañ xaar 4. dañuy xaar 4 ba xam fu mujj tamit. mais yow li nga laaj bëri na de 5-0. Ah, tamit. Sénégal dañoo war a am jom équipe mag la ñu yor. waaw loolu moom am na mais ñu nuyu di la ziar. ñu delloo ziar. moom nee na 5-0 la bëgg 5-0 imaginez 5-0 mais comme que loolu la gis donc yaa ma eh eh eh eh eh eh eh, eh, eh, eh. vrai supporter mais sëñ bi li nga sañ sa waa daa ragaloo ko. ragaluma ko de. mais veste nga laal def say dàll tuur sa café. kontaan rek. demee nag 2-0. 2-0. saa yu ma day dugal beneen bi. ah mais ñaar yëpp Sadio nga bëgg mu door ko. waaw Sadio da koy dugal. Sadio day sonal gars yi wax dañuy minute mu dugal deuxième bi. mais noo gisee match bi tey ak. waaw neex rek neex rek. instant ñëpp ay kontaan day yàgg rek. mais ak classement bi nan nga ko gisee. nice kay Aliou Cissé moom def nice. lépp cool waaw lépp cool kay. lépp RAS lépp RAS. mais mais mais sa sañ danga nga ma bu baax. couple bi day dem de. beaucoup. waaw. rang muy gaaw. rang muy carat. waaw firi rek baax ci tasa mbaare mu naan. sagi ngi naka mu. noo tudd. Papa Diouf. Papa Diouf waaw borom yow. Eh, saa li li kaw mooy lan. lii vert zone rouge la. sans étoile Sénégal pire. Ah. waaw. match bi moom lépp naa mais des de na yeneen i bii. yeneen bii Sénégal dina door 3-0 bala baar kàng. Hmm. benn lan amagum quoi. koo yaakaar ni mooy def dëy. lii du bii sax dañ leen rek. Ah. ñaxal bi la. waaw ah, kon léegi dëy kan moo koy mhm. dina dugal beneen attaquant dina dugal. kan. du ma wax tur moom balaa may fen mais actuellement classement bi nii nii gis nga nu changé ko wala. nice man pour man Aliou Cissé dañu daan um rasam yooyu mais du loolu. si c'est Sénégal wala boog meen. Ah. les Catalans comme les Barcelone comme Xavi Iniesta ah. jaajëf. oh oh oh oh oh. Jaro. Sénégal lañu wa. Cissé. Aliou Cissé. Eh, eh suñu entraîneur mi ngi nii Aliou. entraîneur kontaan rek kontaan rek moom ci équipe bi quoi hmm, macha allah moom. mais tey match bi ñaata bi nga war a gis. non 2-0 rek baax na. 2-0 mais ku ma laaj naa ma 2-0 2-0. baax na affaire Guinée la bu doon naar yi moom ma door leen 4 wala 3. xanaa <laughs> non deux sera c'est bon baax na quoi. c'est bon ah sëñ bi nuyu naa la. waaw fay nañ la. tur bi nan la. El fan nga jógee. waaw maa ngi jógee Liberté 6. Liberté 6 dafa lay. boobu amul amul zone. am na maa sentir fii. mais fii nga sentir. waay waay Yoff lañ wax de. waaw Yoff wax Yoff. mais xam nga fii am buzz am ci dafa garaaw dafa garaaw. bi mu ngi neex de mu ngi neex de mu ngi neex quoi. deux baax na mais quatre moom a gënal waaw. man li ma wax sànq rek nee naa man su ma sañoon dañuy dóor 5-0 yaa ma gën a xam. fay day fay. mais yow boo dooroon 5-0 nan nga nar a maye tey. yii jigéen ñi ñëw. maa leen bitik bitik bi naa la solal ba nga bëgg. mais ñamal ma dara tuuti un peu. kii Serigne Saliou bu Sénégal ma la ay yére yu baax. eh moo ko wax tur bi nan la. El Hadj Shop la jëlal numéro bi 77 803 03. nee na kookoy El Hadj Shop donc bu ñu gagné dina ma solal incha

Nakamu maa ngi lay nuyu di la siyaare. waaw ma ñëw sama su la nekk yaa ngi si jàmm. seetaan nga match bi. waaw seetaan naa ko waaw. sa kanam bi kontaan na. waaw kontaan bu baax a baax a ñoo gis sa match. waaw c'est comme ça. rek man li may wax rek ci compétition la nekk. l'essentiel c'est de gagner. mais deux matchs yi ñu joué. gis nañ ci suñu bopp bu baax ñu ngi am am nañ jeu bi te li ñu ñu ngi koy am ñu ngi dugal. tey dafa mel ne gis waaw si question bi. beneen Sénégal tey gis na beneen Sénégal. waaw non ñaari match yi beneen beneen gis. waaw mais bu tey bii dafa mel ne moo gën a garaaw waaw. waaw si mooy Sénégal li ñu wax rek tey dafa cee gisaa ñaari jàngat moom mooy chaque jour dañuy wax Saliou Ciss Saliou Ciss Saliou tey moo la gën a ci match bi Cheikh Kouyaté chaque jour dama koy défendre tey moo la gën ci match bi. ci remplaçant wu remplaçant bi El euh, Aliou Cissé def fu mu ne baax. waaw si moom laa lay ki nga ay léeg-léeg da nga ciy nekk ay léeg-léeg doo ci nekk tey dafa def match Aliou Cissé tey dafa def match ngandi match la def tey dafa mel na yi dégg na ko dafa mel loolu baax na tamit sénégalais di ko critiqué muy gën a nekk ci kan bi quoi waaw si critique mënul ñàkk parce que chaque jour nit dañ ko war a critiqué parce que mais tey boo xoolee ku saraan képp ku sénégalais xam nga waaw Aliou euh, parce que bi mu def Cheikh Kouyaté la Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr ak Bamba Gueye ak Bamba Gueye waaw ñoom ñaar ñëpp l'essentiel ñu ñoo a génn ah, mooy ah, kii booy bi nekk Villarreal ah, Boula Boulaye Dia tey tey dafa waroon a génn te action actuellement daal li mu def li mu def moom mooy moom mooy jeu li may wax Sénégal daal moom mooy ne kenn kenn mënul lépp nit ay léeg-léeg da nga nekk ay léeg-léeg doo ci nekk te ñu ngi ñaanal yàlla Aliou Cissé mu nekk ci match am chaque mu nekk ci match am jour yi di ci a nekk yaakaar yàlla jàmm ah, waa koñ bi kaay leen xool déedéet baal ndax suñu dañ koy defaat ñaafal ñaafal ah eh, soxna si soxna si soxna si loo gisee marché ah, rek mais maa ngi ngi ruube ah, ndax ma waral loolu soxna si Mbose Mbose. Mbose noo gisee mes bi. neex kontaan rek. mais ambiance baa ngi neex. Emmanuel Aïbadara Abbas Abbas noo gisee match Sénégal bi. ah match Sénégal bi xanaa kontaan. Ah. dinaan yàlla yàlla yóbbu ñu demi final bi ñu dóor. tey gis nga beneen football ci Sénégal gannaaw bi mu jógee ci yeneen match yi nga xamante ne def na ko ci kan. tey gis naa beneen football parce que gis naa Ismaïla Sarr bu mu duggee changé na match bi dañ koo xaaroon dañ kaa yàq. non mais Ismaïla kese parce que ah, ah, kii remplaçant yi Cissé eh, def. ak Diédhiou tamit Diédhiou daa yàgg xaar bu yàgg ko ko waroon dugal mais Sadio Mané tamit gis nañ mu def match bu rëy match bu amul fenn coupe bi day ñëw incha am naa yaakaar sant naa yàlla bu baax di sant sëriñ yëpp di sant supporteur Sénégal yëpp di sant Yoff gars yi Sénégal yëpp daal man maa ngi jógee ba puuda sama tisat laa sol nii maa ngi nii. Noël bi laa sol Fuuta nga quoi. waaw non Pël Fuuta Fuuta Fuuta bu Macky jógee Fuuta bu Matam laa nekk. Ah, nga ne biir Fuuta Kalidou Koulibaly ministre des ministre des ah. mu dëkk foofu laa dëkk man ah. waaw. kontaan nga kon. jàmm ci yow. na nga def. maa ngi si jàmm seetaan nga match bi. waaw tere kontaan moom. kontaan nga bu baax billaahi kontaan ah. sama na guy billaahi. lan nga doon gis si match bi loola neexul ci match yu passé te bii gisatoo ko. non essai boobu noonu naa si daal yu bëri mais par rapport ak équipe bi équipe bii nii. équipe bii moo ñu manqué woon. manqué woon moo ñu manqué woon. Ah. parce naa ay gars yi wan seen bopp saa yu maa ngi koy gërëm di ko sant gañ la. Ah. nga daal Sénégal quoi gis nga Sénégal. waaw gis naa Sénégal nii. coupe bi day ñëw incha allah day ñëw ñu la dama gaaw a dóor ah damay fàttaliku taay Aliou Cissé di rafet bal bi penalty bi. Eh, da la dóoroon 1 final da leer. final kon moom ah. na kon. kon sama eh, nga am ni coupe bi day ñëw incha allah feetu xaar leen ko aéroport aéroport dañ koy tëj bi la bi yoof bi lay ñëwee ah. comme daaw teeruñ koy teero bi bi mooy raw li oto yi ñoo jël buloo wax yëpp oto yi ñoo faral naaj. jàmm ah jàmm. <laughs> yaay booy na def. ngi sant. noo tudd. Jatu Tyson laa tudd. ah Jatu Tyson. Jatu Kayta. waaw mais yaay booy gis nga équipement bi nga def. dafa rafet. waaw ah, merci. dafa mel ne douzième kay nekk ah. original baa ngi nii. ah barke yonent bi. foo dëkk fii ci yow. waaw Yoff laa dëkk mais waa Mbour laa nag. Ah. ndeysaan maa ngi bëggee waa Mbour yëpp di kontaan. parce que lu si bari dama fay dem di ko féeteeg ñoom. mais yàlla dafa dogal ne lii fii la ma fekk. mais maa ngi kontaan bu baax. Ah. di gën a ñaan ca kaw ca kanam. Ah. di ñaan rek man daal kub laay xaar ci barke yonent bi. Ah. di ci am yaakaar nag. gis nga gis nga beneen xar-xaru kanamu Sénégal ah ci match yi passé ak match bii nga xamante ni moom lañu fubal tey gis nga Sénégal sa xel dal na vraiment sama xel dal na ndaxte boo xoolee ñaari nii lii mu tegale dafa dëgëroon mais loolu mbiru yàlla la ñun découragé wuñu woon barki yonent bi ngëm rek la ñuy gën a am saa bu ñuy nelaw bu ñu yeewoo ñun ngëm la ñuy nooyee barki yonent bi di am yaakaar rek euh, Aliou Cissé critique yi ñu ko doon def gis nga ni tey non kuy di wax yemuñu moom liggéey rek lay def waaw ku am yar la ku am teggin la barki yonent bi ah. ragaluma si moom dara barki yonent bi bu ko yàlla tuddee day ñëw ah. parce que li ñu war a def yëg def nañ ko yoruñu ay cuune ah. ay gaynde piir la ñu yor ñun xoolal xamala na moo war ñun nañ def li ñu war a def rek ñoom xam nañ li ñu war a def jaajëf yaay booy yàlla na jàmm yàgg ci yow amiin ñu bokk sëñ Saliou Saliou sëñ Saliou sa tur bi neex waaw yow kan mooy sa jour si équipe kan mooy ah. rek moo ci sa jour waaw ak tey Ismaïla Sarr ak Ismaïla Sarr waaw ak Diao Baldé ah. Ah, ak Krépin Diatta jeex na ñëpp ñëpp waaw. yow sa xel dal na ci équipe bi ah. waaw na ci boog dal na ci ah. dal na ci. ko ah. daal fii fi mu toll jàpp nga ne coupe bi day ñëw. na guy coupe bi day ñëw ah. waaw coupe bi day ñëw. jaajëf yal na jàmm yaa ngi sew sëñ Saliou. salaamaaleykum ñu ngi fii ci fan zone bu Yoff ah instant bii maa ngi nii di laajte sama sëñ bi na nga def. maa ngi fi. ci loo maa ngi si jàmm. nan nga gisee match. match neex na de. noo ko gisee. ma ne dafa neex de parce que waa senegal tey dañu wane football quoi tey dañ indi li nga xamante ne loolu lañ leen sant chaque jour dañ leen daa wax pour ñu football waaye dañ daan ñëw di wane yëfi ñàkk a fayda te loolu dañu war a xam ne ñoom ak seen moroomi góor la tey dañ wane ne. ñoom gaynde gi ñuy wane tey dafa feeñ si ñoom est-ce que yaay comprendre. mais lan nga gis si suñu entraîneur Aliou Cissé. ah Aliou Cissé ah ñu ngi xoolagul rek bu fekkee jël na moom xam nga sénégalais ñoom ñu ngi noonu dañ am dañ bëri yërmande bu jëlee fii nii dara xëy na mën nañ kaa bàyyi ni duñ ko wax dara mais Aliou Cissé tey moom match bi daka teg si yoon match yi passé yële na yëpp dafa doon def li ka neex mais tey dafa dal ah tee boo gisee changement yi mu def yëpp changement yu baax la lool laa wax si moom. mais boobu ba léegi ñu ngi doon wax El Hadj Diouf El Hadj Diouf lan nga gisee expérience El Hadj Diouf si biir si boo xoolee expérience El Hadj moom dafa nekk koo xamante ne dafa bàyyi football di football ba tey boo seetloo génération 2002 bi moom rek nga siy gis boo ko dugalee si terrain ga mel ni kii dafa nekk daal jeune quoi moom day football ba léegi kon kooku buñ ko joxee suñu équipe. non xool naa daf ko war a mën a doxal. mais Sadio Mané gis ngeen ni mu joué gis ngeen ko wàllam ci équipe bi la nga si wax. non bu mag la xanaa xamoo lii européen dañ soxor rek mais daaw meilleur joueur du monde Sadio maane lañ ko waroon a jox parce que li muy football doo gis joueur bu koy football moom moo nekk joueur boo xamante ne day yóbbu day marqué day football lépp lay def. mais gars yi temps yi dañoo génne fecc bu bees nee nañu si ci senegal sénégalais damay laaj ndax équipe bi jaral na la ko wala nooy wàcceel ci suuf bi lan équipe bi kan li ma jaral bëri na. mais wàcceel ah, rek. non seet rus ma si waay. wala merci merci. waaw salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam soxna si. ci loo nekk. sant yàlla bu baax. yaa si jàmm. maa ngi sant. foo dëkkee yow. yoo fa laa dëgg. mais mais mais mais yow seen fan zone bi dafa neex nu mu demee xam nga rek lépp dañ koy sant ñi nga xamante ne ñoo ko fi def mooy waa Subatel. ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm parce que lii boo xoolee partout Sénégal am na fa quoi ñu leen sant di leen gërëm baax a baax macha allah. kon tey fi nekk nii yëpp waa Subatel ñoo ko def. lépp lépp ñoom la ak ak ak maire bi quoi Abdoulaye Diouf ah ok jàpp quoi. mais nan nga gisee match bi tey sénégalais tey tey tey wane nañ seen jàmbaar loolu laa mën a Sénégal yàgg na wane jàmbaaram am na ñoo xamante ne xamuñu football mais ku xam Sénégal xam ne Sénégal pour mu amoon yére si kanam il faut mu dee équipe bu mag comprendre nga mais Sénégal li muy joué fenn la faute bi xaw a nekk mooy si Aliou Cissé Nampalys Mendy bi ñu dugalee 3-1 da nga koy génnee dugal Pape Matar Sarr mu noppalu. mais à part loolu équipe bi nice man bi ñu bi ñu fubalee ñaari match laa yoon bi ñu jëm ni yoonu final la te incha allah dinañ jël coupe mais yaakaar nga ni Sénégal incha allah dina dem final. incha allah Burkina naa ko moom moom ak kan nga yaakaar ne ñoo war a mën a dem. non Sénégal man man boog Égypte laa xalaat quoi. Égypte pourquoi pas Cameroun kii kii ñoom ñi ñoom ñi organiser. non parce que Cameroun bay xool dajalagul ak équipe boo xamante ni équipe bu tax ñu naan équipe la bu dajee ak Égypte na foofu dañuy jaayante quoi parce que revanche moo ko dooroon final. mais instant Sénégal supposons bu taseloon ak Cameroun wala Égypte na nga koy gis. instant bi bàyyiwuñ fi kenn ku ñëw doon lay defal bagage. mais mais kon coupe bi ren ñoo koy moom. incha allah nañu ba nañu ñaanal rek xel quoi ba ñoo fa xasal incha allah. dégg ngeen ko lu na Sénégal incha allah boo moytuwul mooy tase ak Égypte final loolu mooy xalaatam ñu ngi koy remercier merci. ok merci. ok. Eh, eh, eh, ñu ngi woon fii si seen place Mamadou Diop fi ñu naan. zone Yoff bi si fan Yoff bi ñi ngi fii tey nekk seen match quart de finale Sénégal wane na boppam tey. waaw Bousso Sénégal wane na boppam tey tey gis nañu beneen beneen xar-xaru kanamu Sénégal ah par rapport ak match yi nga xamante ni jaaroon na fi ah sénégalais yi sax seen xar kanam da ngay gis ni tey kontaan nañu quoi gis nañu fubal Sénégal gi ñu gisoon xamoon Sénégal ga weesu la ñu gis tey tey dafa mel ne 2002 laa jàkkaarloo ñoom El a Diouf Fadiga Sadio l'autre là euh, Salif Diawa ñooñu laa gis tey quoi gis naa football xel dal na gis naa ni daal Sénégal gi bu teggul tànkam mën na dem final jaara mais nan ngay tàggatoo ak suñu mbokk internet ñi pour wax leen dig daje beneen. waaw li may tàggoo ak ñoom mooy di wax ni rek incha allah ñun ñoom saa su ne ci Dakar net ñooy ànd fa seene di leen digtal lépp loo xamante ne xew na ci euh, euh, fan zone bi nga xamante ne mooy moom moo nekk fii ah ci euh, rond point bi ci Brioche Dorée bi ci suuf pont bi incha allah saa su ne ànd ak ñoom fii ba final nag quoi parce que damay final waaw damay final quoi fii ba final damay ànd ak ñoom ci dakaar net di leen digtal li nga xamante ne mooy bàyyeekoo fii ci fan zone bi